mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ku ne xam na ne groupe Futurs Médias ku am taxawaay la ci diine ji rawatina weeru koor comme ni ñu ko daan defee at mu jot yegg siwaat na mu di programme Ramadan bis bi yépp ñu jagleel ko weeru koor jagleel ko diine mu di ay waxtaan yu am solo ñu ànd ci ak mboolem ustaas yi nekk ci kër gi. yéen suñuy partenaires comme kóllëre gi ñu seqoon ak yéen ñi ngi koy feddali yéen ñi bëgg a fésal seenum njaay ñi ngi leen di tàllal loxo di leen woo ci programme bu am solo bii ñu jagleel weeru koor ci atum 2022 1433 seetu Ramadan ak télévision Futurs Médias mi ngi leen di jox rendez-vous durant mois de Ramadan wasalaamualeykum. wa rahmatullahi taala wa barakaatu. طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي